Thank you bàjjanam ndax mu roog papaam ragaluma nga joxe woon man 15 heures laa la may. parce que fii ci ëtt bi rek ma lii seen jëkkër yi dem ngeen ne fi di xulóore fekk jàng nga lu sa problème. li xew moo ma fekk sama biir nekk sama diggalal ma toog mu ma pël bu rafet nee na. Ah, ci yow de moo ma ñëw jox la ko ndax 5 heures pile bu la fa fekkul lay sot day sa yaram. di sa ko. dama ci taxaw ci ba mu dëgër. Ah. dëgg la de sama jëkkër nee naa dama koo bëgg piir ba mu jaral ma sotteekoo sombi bu tàng jër. te duma ko sentir ndax mbëggeel ci moom. Ah, dégg li xam nga ne maa ko ci àdduna. dama jël sama mbëggeel dépassé na foofu. ma ko thank you very much. comme li ma lay wax rek toujours nan la noonu. Mm. day bàyyi ba bisu jàmm fekk si nitu jàmm mu attaqué ko ne day xaritoog moom man nag. loolu nag sa xol sedd guy te xam ne pare naa maa ngi décidé yow sama mbir xull samay bët def déterminé nag toog di ko xaar gis nga 30 fii la may fekk ci diggu géej gi taxaw xet nag doo gis jëng ba xam nga diggante journal ak brève brève laa koy journal ak koy defal ci mais yow nee naa la eh, thank you very much. merci pour bu rafet luy sa problème. maman moo ma fekk man tamit ma toog ci sama néeg mu daal di ñëw toog ne ma puissance. ah man daal man daal kontaan naa ci waa man tamit ah lii du dëkk de man indoo laay gis wala lan sama mag bi bëtam yi daa neex mais bul de wala yoo xool ni mel ni ku jël ndekete masul jël da koy teg direct macha kontaan naa ci yow bu kenn wax ne kontaanuma kontaan naa loolu waaye ci yow waaw kontaan naa trop gis naa yàqu yu neex yi ak ndogu yu baax yi réer yi xanaa kañ kii bi rek laa gisagul suukaru koor bu te xam naa dina ñëw waaw yow moom koo dig euh, ndékki boo ko diggee réer de day xaar de waaye dina yegg si maa mm-hmm. foor nag ci weewu bay ma for bu rëy rëy rëy rëy puissance jabar dëkkandoo waaw mosul laa bëgg ndekki te yow dangay sama jabaru mag sa si man rëkk te doo ma rëkk soo ma gisee lee lu ñaaw sax danga koy wax ci digg kër gi ngay taxaw wax ak ñoom ba mu saf kon man su ma gisee li nga xamante ne nii day ñëw ci yow damay daw si xël laa doon daw ba dugg sa néeg nii soo damaa nooy ba réfléchir toog nii di soog a mën a wax puissance jabar dëkkandoo nee na bàyyiwul dara paaka jaasi sémmiñ maato moom lépp luy daajukaay neen da lay tëcc nii yow ba nga nooy nepp nepp nepp nepp bu la walee nag moom te kenn du lu gisal nee mu taq la ci mu sàndi jira te 5 heures nag pile fu jotee fu nekk boo génn boo génnee contre ala attaque lay def moom day attaqué nii merci beaucoup maman xam nga lu ma neex ci yow danga maa bëgg pire dawoo fi saala yaay ndeer waaye bu ma bëggee benn rek man bëgg naa la fukk ndax damaa sa mag kooku mooy sama cofeel maa ko taamu tippoo ko nag di aaw buuru këram te daw ma ci saala yaay ndeer puissance nag damay ñëw ci moom mu ne ay paaka ak ay jaasi lay ñëw kon moom wérut xanaa xamul ne man tooro du piir laa man xale bi fi bàjjanam ndax nu roog papaam nee naa la koo moyul soow du naan man surtout Samba Yoro Sow bii. kon wérut xanaa xamul ne man sama yaram paaka du ko laal. <laughs> dali gaaw la mooy sama sëriñ nag borom jinne yi kon wérut. ma la koy mu ne 5 heures biir la wax. 5 heures 5 heures lay teel 15 heures laa koy may. 15 heures maa ngi ci digg ak ëtt bi di ko xaar. wérul man duma ko wax heure bu jot ndax moom yorut lu mu lekk sax bay naan day dem di jël ay paaka. nga moytu nag sa yaram bi dafa fragile. pour pour nii rek. Ah. jëlal sa temps ndànk méttiwut. moom la ma ko may point virgule. yow li ngay rek. boo tëddee na sa gin na sa ginnaaw ba ndànk. puissance luy sa problème yow. maman bi moo fekk sama biir néeg bi ne ma Kaja mu ngi lay waajal guerre. ah waa dëkkandoo puissance daal tamit dangaa am doole de ma ne ko alxuraan dafa ñuul kaaba ga ah ñuul aayul de macha allah yow de duma wax yàlla nañ yàlla fal car rek ndax dëkk bu neex biñ dëkk ah paaka génn cin fukkut bënn ko waaye yow sa baax gi yaa ko yeyoo de hmm, sa baax gi danga ko yeyoo de baax nga lool ci man xanaa rek li ma jot ak sa jëkkër rek naka ma ci soof waaye lu dul loolu amuñu benn problème dëkk bu neex lañu dëkk macha allah pare leen saay damay ñëw sa néeg def lu ma neex jaxase def lu ma neex ruube ba muy moom nag moo tax nag tey nag damaa gis loo xamante ne buy ñëw ci yow faa ma dugg sa néeg bi wax la ko sama aja baru bi kanja ñaareel xam nga dafa bon iñaar iñu ñett bul kenn lu am lu baax nag moom kese moo bëgg am lu baax ba tax na ni ma dégg lu bon bon mu wax ko ci yow ma daw si ñëw wax la ko du ma nettali sax waaye lu ma dégg tamit jox ko borom waaw bu siiw nag waaye lu dégg naa ko jox borom moo tax ma ñëw ba ci yow def ay poobaram ay bineegaram moxtaadiram tracé la la lay def nii kidnappé ba tracé daal la lay def te 5 heures nag la joxe RV bu la 5 kër fekkee ci biti mooy sa dey baa sa kidnappé kenn du la sa jëkkër moom dootu la njëriñatoo léegi nag moo tax ba tax na comme que loolu am na ma ñëw yeggee la ko ñaari gaayam la nar a booleel moom lu yàlla xam doy Kodja 5 heures la joxe RBN. 5 heures sa jëkkër nee na bu sa gaañu xañ la man Kodja waxuma moom man ku lu jeeg maay sa man maay avocat jeeg ñi. neex na. pour Kodja rek mu mel xottu gaz bu jeex mu toll di sol ay talons. yow nag nekkata li nga denc ëpp li nga génne da ngaa soxor. léegi avec ça nga bëgg a tëdd fii di jooy di yuuxu ah nga yow ngay jaxase ay nit ba pare tëdd fii naan da ngay jaay fumiste